waaye dañuy yàgg balaa Fall bi jël kàddu. waaye booy comme ni ma la waxoon sama matin affaire daf ñoo bett. Hmm. le grand champion Siteu Talibé Bamba. Hmm. mooy bëreel combat royal. Hmm. le 24 novembre. sponsor bi distingo mu a woon day wër ci école yi maye fourniture nga xam ne ni banlieue bi li ñuy daj mu ne balaa moo doon fenn moom ay baata da ngeen dégg mu naan bloc 16 jàmm te école bi mooy quartier maire bi fii la pour ñëpp jàngee moo tax mu ne balaa moo doon beneen école day ñëw fii ma bëgg nag yaay booy si sa tur ak waa voilà ziar du nuyu waa distingo si mooy borom bis bi mu nuyoonteeg mbokki onton na di waaye nuyoonteeg mbokk yi koy seetaan waaye nuyoonteeg mbokki jàmm gën Mansour ñoo ngi lay nuyu. waaw Fallou maa leen di fay di nuyu waa presse bi yëpp di nuyu waa école bi di nuyu le grand champion Siteu di wax ne tey dañoo ñëw rek daal le cadre de la deuxième journée ci caravane bi démb ñi ngi woon parcelle tey ñi ngi jàmm gën pour don de fourniture scolaire ak euh, distingo mais di wax ne rek li ñuy def nii tey fii jàmm gën dañ cee fekk si Siteu ndax Siteu tey yaakaar naa ne fépp fu bëtu waa Diamaguen xonkee fomp na ko wax naa ko démb nee naa période inondation hivernage muy ni ay moto pomp jàppale xale yi di leen jox ay moto di yóbbu ñi ñu voyager donc kon lépp lu ñu mënti def ci cadre bi dañ ko ci fekk si di ko encourage di wax ne mbëri dañoo war a jël exemple si ñoom maanaam nekkul rek jël sa alal def sa poche tey dafa am ñu la wóor am ay xale yoo lay bëggee da leen war a jàppale di leen te moom ci loolu la nekk dañ ko ciy fekk si ñun ak di séngoo tey ñu ñëw wax dëgg yàlla tey di ko sagal ci goxam wane ne gis nañ liggéey bu muy def yëpp ci social ak ak activité citoyenne di ko ci encouragé di wax lépp luñ ko ci mën a dooleel dañ ko ci dooleel ndax ndaw la bi nga xamante ne dafay bokk ci ñuy contribuer ci développement réew mi merci jërëjëf jërëjëf PNN madame sa toog sa téléphone. madame Sène ñoo ngi lay nuyu gannaaw bi la Siteu seetsee euh, ànd ak euh, le président Mansour Ba bu jàmbar waaye tamit ànd ak waa di Sengo ñëw fii ci école bi tey euh, ban yëg-yëg nga am en tant ci ouverture yi nga xam si ni am na parent yoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw Siteu wat leen a jàppale ànd ak ak Mansour ak di Sengo tey ban yëg-yëg nga am en tant que directrice waaw maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew man la madame Sène directrice de l' école Alioune Gaye de Diamaguène kii Tivaouane Diacksao kontaan trop ci acte bi ngeen def nii tey ànd ak le grand champion Siteu mi mhm. nga xam ne waa dëkk bi la waa Diamaguène la mhm. moo xalaat def li tey ànd ak ay partenaire am ñëw mhm. fii ci école bi mu nekk geste bu mag a mag a mag a mag ku nekk xam ma ni banlieue bi ak zone yi ni mu mel euh, bu école tijjee parents yëpp seen fit yi dañuy dem ci inscription yeeg ci jënd fourniture mm-hmm. Mm-hmm. kon bu àndee ay partenaire am ñëw fii ci école jàmm gën pour jàppale xale yi mm-hmm. ñi nga xam ne ay rakkam lañ ay jarbaatam lañ ñi nga xam dañ koy bëggee mu jàppale parents yooyu loolu c'est un geste boo xam ne dañ koy saluer bu baax a baax à sa juste valeur kontaan nañ ci bu baax a baax donc ci turu équipe pédagogique de l'école ci turu parents d'élèves yi turu élève yëpp ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla mu nekk ci kanamam yëpp yàlla may ko ndam champion bi muy ut euh, roi roi des arènes bi mm-hmm. au soir du 24 novembre mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal mu nekk lu ko jik carrière am la ci des yëpp yàlla na ko yàlla jàppale bu baax a baax ndax jàppale jàmm gën la man dëkkuma jàmm gën liggéey moom fi andi mais depuis ma fi ñëwee li mu fiy def yëpp maa ngi koy dégg mm-hmm. kon ñu ngi koy sant di ko gërëm li mu def yëpp c'est pour les parents jàppale parents jàppale ay rakam ay jarbaatam waaw ñu ngi sant di sant ñi mu àndal aussi le promoteur e les les partenaires. di Sengo di sant bu baax wax ji moom mënul ko di parce que dañu bett ni mais. sant bu baax nee leen affaire bi si tëllë affaire bi si tëllë affaire bi si la ngay génn. maa d'accord xaaral ñëwal bëgg naa ci bëgg naa tuuti rek Fall. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, kii suma rakk. ñëwal gars yi bu baaxee ngeen wax ña. ñoo ngi lay nuyu. xam naa moment yu mel nii ak jëf yu mel nii miin nga ko sëyëf la mais tey nga ànd ak les grands promoteurs Mansour Ba waaye tamit nga ànd ak disengoo mi nga xamante ni moom mooy jaay kaye yu baax yi disengoo bi nga xam si ni kaye yoo xam ne boo ci jooyee sax du xotteeku kaye yu wóor disengoo la bokk tey nga ñëw ci école bi nga xam ne miin nga ko yàgg nga fee ñëw tey di leen defal lu mel nii tey ban yëg-yëg nga ci am. waaw li may njëkkee mooy jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw ñu ngi nuyu ñu fi nekk ñëpp di nuyu élèves di nuyu ñi nga xamante ne mooy suñu parents yi nga xam ne ñoo seen parent waroon fi nekk te nekkuñu fi mhm. waaw di wax ne ñoo ngi sant suñu promoteur bi ñoo àndal muy Mansour waaw di kontaan trop ci geste social bi muy def mhm. parce que doomu aadama moom sante bu weesoo sante sociale la mhm. social moom xam nga expliqué li des liggéey la liggéey la boo xamante ne tey mooy si lii ñu jëm muy le 24 waaw novembre bi ñu jëm combat bi nga xam ci la Mansour tëgg muy combat Modou Lo ak Siteu mm. lu ci bëgg yàlla na ko suñu borom defal moom waaw lu muy séntu suñu tamit yàlla na ko suñu borom defal mm-hmm. ba di kontaan tamit si distingo mm-hmm. waaw parce que lii geste la mënoon na yem si sponsor kese mais dugg si banlieue bi jublu xale yi jàppale leen pour ñu jàng parce que ñii ñooy doon ku ne ëllëg. waaw kon xale moo nekk loo xamante ne képp ku jàpp jàppal ci xale. waaw lii moom Mansour kontaan nañ si di lay gunge. di lay wax ne ñoo ngi sa ginnaaw di lay dooleel. waaw di xool lan mooy sa ndam di xool lan mooy sa doole sa kàttan si côté boo ñu séntu dinañ la si taxaw bu baax jàppale la. di lay ñaanal yow ak li ngeen ànd di liggéey yàlla suñu borom doole leen kattan ba li nga ci bëgg yëpp nga am ci waaw loolu la lu may wax remercier ñëpp remercier journaliste yi waaw kontaan trop waaw ah? indi kaye benn benn quelque kaye gars yi dañuy yàgg balaa Fall di jël kàddu. yaay booy comme ni ma la waxoon sama matin affaire daf ma bett. le grand centre Cité Talibé Bamba. Hmm. mooy bëree combat royal. le 24 novembre. Hmm. andi ceeb sponsor bi distingo mu ne woon day wër ci école yi maye fourniture ndax xam na ne banlieue bi li ñuy daj mu ne balaa moo doon fenn moom ay baata da ngeen dégg mu naan bloc 16 jàmm gën hmm. te école bi mooy quartier maire bi fii la pro ñëpp jàngee moo tax mu ne balaa moo doon beneen école day ñëw fii ma bëgg nag yaay booy si sa tur ak mooy borom bis bi mu nuyonteeg mbokki onton di waaye nuyonteeg mbokk yi koy seetaan waaye nuyonteeg mbokki jàmm gën Mansour ñoo ngi lay nuyu. waaw Fallou maa ngi fay di nuyu waa presse bi yëpp di nuyu waa école bi di nuyu le grand champion Siteu di wax ne tey dañoo ñëw rek dans le cadre de la journée ci caravane bi démb ñu ngi woon parcelle tey ñu ngi jàmm gën pour don de fourniture scolaire ak euh, distingo mais di wax ne rek li ñuy def nii tey fii jàmm dañ cee fekk si Siteu ndax Siteu tey yaakaar naa ne fépp fu bëtu waa jàmm gën fomp na ko wax naa ko démb nee naa période inondation hivernage muy ni ay moto pompe jàppale xale yi di leen jox ay moto di yóbbu ñi ñu voyager donc kon lépp lu ñu mënti def ci cadre bi dañ ko ci fekk si di ko encourage ji wax ne mbëri dañoo war a exemple si ñoom maanaam nekkul rek jël sa alal def sa poche. tey dafa am ñu la wóor am ay xale yoo lay bëggee da leen war a jàppale di leen gestu te moom ci loolu la nekk dañ ko ciy fekk si ñun ak di séngoo tey ñu ñëw wax dëgg yàlla tey di ko sagal ci goxam wane ne gis nañ liggéey bu muy def yëpp ci social ak ak activité citoyenne di ko ci encouragé di wax lépp lu ñu ko ci mën a dooleel da ko ci dooleel ndax ndaw la bi nga xamante ne dafay bokk ci ñuy contribuer ci développement réew mi merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf madame madame Sène. gannaaw sa toog sa téléphone. madame Sène ñoo ngi lay nuyu. gannaaw bi la Siteu seetsee. Euh, ànd ak euh, les président Mansour Ba bu jàmbaar. waaye tamit ànd ak waa di Sengo. ñëw fii ci école bi. tey euh, ban yëg-yëg nga am en tank ci ouverture yi nga xam si ni. am na parents yoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. Siteu war leen a jàppale ànd ak ak Mansour ak di Sengo. tey ban yëg-yëg nga am en tant que directrice. ngi nuyu ñëpp ñu fi teew man la madame Sène directrice de l' école euh, Alioune Gaye de Diamaguène kii ci Diacksao kontaan trop ci acte bi ngeen def nii tey ànd kaak le grand champion Siteu bi nga xam ne waa dëkk bi la waa Diamaguène la mu xalaat def lii tey and ak ay partenaire am ñëw fii ci école bi mu nekk geste bu mag a mag a mag a mag ku nekk xam ne bi ak zone yi mu mel Euh, bu école tijjee parents yëpp seen fit dañuy dem ci inscription yeeg ci jënd fourniture kon bu àndee ay partenaire am ñëw fii ci école jàmm gën pour jàppale xale yi ñi nga xam ne ay rakkam lañ ay jarbaatam lañ ñi nga xam dañ koy bëggee mu jàppale parents yooyu loolu c'est un geste boo xam ne dañ koy saluer bu baax a baax assa sa juste valeur kontaan nañ ci bu baax a baax donc ci turu équipe pédagogique de l'école ci turu parent d'élèves yi turu élèves yëpp ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla nekk ci kanamam yëpp yàlla may ko ndam champion bi muy ut euh, roi roi des arènes bi au soir du 24 novembre yàlla na ko yàlla defal mu nekk lu ko jik carrière am la ci des yëpp yàlla na ko yàlla jàppale bu baax a baax ndax ku jàppale jàmm gën la man dëkkuma jàmm gën liggéey moom fi andi mais depuis ma fi ñëwee li mu fiy def yëpp maa ngi koy dégg kon ñu ngi koy sant di ko gërëm li mu def yëpp c'est pour les parents jàpp parents jàppale ay rakam ay jarbaatam waaw ñu ngi koy sant di sant ñi mu àndal aussi le promoteur et les les partenaires di Sengo di sant bu baax wax ji moom mënu ko di parce que dañu ni mais sant bu baax mais leen affaire bi si tëlë affaire bi si tëlë affaire bi si tëlë ñëwén ñëwén ñëwén ma ñëw léegi da ngay génn ma d'accord xaar ñëwal ñëwal waaw bëgg naa ci bëgg naa ci yokk tuuti rek Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, kii